mbokk internet di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm ma ne ko ci cay ca yàlla ay waay tey laa waaru nag waaye kon Sénégal am na góor ñu soxoree nii ma ne ko ci eskay cay lii benn xale bu jigéen la ndeysaan xale bu jigéen bi nee na histoire bi bi mu koy commencé mi ngi am vingt ans ndeysaan nee na ndax moom mille la juddu mille 2020 mu dal di am vingt ans ndeysaan neena moom maamum bu jigéen moo ko yar mais yaayam ak papaam yaruñu ko neena ma nag maam ji dafa tàng diine mooy maam yu metti yooyu nga xam ne dañuy yar seen sët te seen sët yi duñ leen ñame ndeysaan ma ne ko cey loolu nee na am benn jour nag benn tàntaam daa di proposé ko ne ko dafa am sama benn doom boo xam ne dafa bëgg jabar te sama doom boobu France la nekk te man yow laa ko yéene ndeysaan cey nee na mère bi ñëw daa di koy wax maam ji bi mu ko waxee maam ji nee na maam ji daal di d'accord dal di yëkkati ay photoom envoyé ko waa ji nee na bi mu ko envoyé waa ji waa ji gis photo yi rekk nee na waa ji gën a tee tipse samp cuukeel ne man intéressé naa ko ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee na le jour waa ji woo ma téléphone ñu déggante ñu ne bi ma dégganteeg waa ji le même jour nee na may dem ma génn marché la doon dem nee na ci marché bi rek ñu woo ko ne ko waa ji dalay seet si tey tey tey le même jour encore ndeysaan nee mu daan ne waa yow lii moom tembere na di tey tey ñu envoyé ko samay photo mu woo ma téléphone ñu déggoo ma demati marché mu ne tey tey day ñëw suñu kër te moom sax avertiru ma ne day ñëw nee na ma soxna Faatu comme dama ragal te dama nekk xale boo xam ne dañ ma napp te sama maam daf maa napp nee na ma boole lu ma neex ak lu ma naqari ma daal di nangu waa ji ñëw ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee na aw ma choix nee na ci noonu waa ji ñëw gisaat ma rek nag gis sama jëmm ji rek nee na waa ji gën a daanooti leer ndeysaan nee ma waaye soxna Faatu ndekete yow ndekete yow ma ne ko billaay wallaay taalaay ci yàlla hmm. yàlla baax na ndeysaan nee na man maa nekk xale yoo xam ne awma liberté du heure bu ma neex génn du ër bu ma neex dugg maanaam man dañ ma yar dëj ma benn palaas ñamewumaa def lenn loo xamante ne sama maam àndu ci ndeysaan cey ne bi waa ji gisee jour boobu nag ba samp cuukeel waa ji ñibbi deux jours après mu tombeek lundi nee na waa ji woo ma téléphone ni ma naa ñëw seetsi ko daf maa soxla nee na comme nag man nekk naa xale boo xamante ne awma liberté ñamewumaa jóg rek génn nee na ma wax waa ji ne ko ñamewumaa génn te ñëw seet si la aussi ñamewuma cee tàggu sama maam ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee na waa ji ne ko fexeel la tout nga ñëw ñu gisee waxtaan parce que dama laa soxla nee na mu tombeek jouru anniversaire am nee na mu ne waa ji comme dafa tombeek sama jouru anniversaire léegi nañ xaar ba le lendemain dinaa xool nan lay waxee sama maam ba ñëw seet la ndeysaan ma ne ko ca eskay nee na ci noonu nag mu xëy daan ne maam ji benn tàntam moo ko yónni xaw ma fan ak fan nee maam ji daal di accepté ñu ko demal te ñëw ndeysaan nee na ma soxna faatu ma dem seeti waa ji na bi ma seeti jee waa soxna faatu xam nga waa ji lu mu ma doon doyee ma ne ko xale bu jigéen waa ji lan la doon lan la la doon doyee ndeysaan ma ne ko ci cey hmm, hmm, hmm, garaawul de nee waa ji ni ko dama bëgg nga def test drépanocytose ndeysaan nee na mu mënuma sax moo bi nee na mu laaj waa ji lan mooy test drépanocytose nee na waa ji ni ko affaire u deret la defal test bi rekk dama koo soxla ne ci noonu nag mu daan ne waa ji man ñemewumaa wax sama maam damay def tes léegi nag comme ñemewuma sama maam yow léegi wax ko sa tànta bi ñu boole sa tànta bi wax ko sama maam bu sama maam accepté ñu daldi def test bi ndeysaan ma ne ko ci cey nee na ci noonu nag tàntay waa ji wax ko maamam nee na maam ji ne ilaa dee test du fi am tey du fi am ëllëg deful test tey deful tes suba nee ci noonu soxna faatu ma làqatu ànd ak waa ji dem defi test nee ma test boobu ba fii may waxeeg ak yow sama maam dugg na biir suuf yëgul ne test boobu def naa ko ci àddina ndeysaan nee na bi ma demee yàlla def test bi daal di positif léegi bi mu positifee nag nee na waa ji nag accélérer la cadence ne day takk day takk day takk ndeysaan nee ci noonu nag man ma commencé reculer mel ni ku ragal a dugg ci sëy bi ba pare santiratuma dara dara dara dara ci waa ji ndeysaan nee na nag bëggatuma sëy bi bëggatuma ci dara dara dara mais sama maam ak sama waa kër maam menacé nañ ma napp na ma napp nañ ma ni ma sëy bi danga koy sëy par A ou par B ndeysaan nee na nag comme dama nekkoon xale boo xam ne dañu naan sama fit nee na ma daal di nangu nee na ci noonu sama papa woo ma sama papa ni ma sama doom bu fekkee ne sëy bi bëggoo bu ci dugg ndax néegu sëy dafa xadde te mbëggeel rek moo la ci mën a yàggal bu dee bëggoo waxal rek ma dem waxtaan ak sa maam nee na ma faatu dama ragaloon sama maam de telle sorte ko bëgguma mais ñemewumaa wax sama papa bëgguma ndax sama papa su demee wax ko dama ne bëgguma rek sama maam xam naa ne mun na ma cee torturer nee na ma daan ne sama papa si bëgg naa kay ndeysaan nee sama papa ne ma ah comme yaa ne nee na ci noonu amoon na ay werante sax nee na maamam nekk fa day sëyi day sëy parce que kii am na vingt ans nee na ñoom ay làkkat lañu te ñoom seen xeet boobu soo amee vingt ans amoo jëkkër ñoom day mel ni ci ñoom ko dangaa lamb maanaam dañ lay xool xoolin boo xam ne comme si que yow dangaa def lu garaaw mu ne maam ji naan magum jëmm la ku dem ba am ñaar fukki at day sëy day sëy jàpp fi mu jàpp nee na ba pare nag ñu menacé ma ne ma sëy bi ngay dund ngay dee danga ciy dugg nee na mu finalement ma accepté sëy bi ndeysaan nee na waa ji ñëw indil ko mille ndax takku jàkk kese la waroon a def après su paasee ñu doog a programmer mariage bu mag a mag bi parce que ñoom xeet bi ñu bokk dañoo ñame xew ngandi xew dañ koo ñame ndeysaan nee na ci noonu nag ñu daal di def takk jàkka bi nee na ma daal di def takk bu simple bu neex nag ndeysaan bu neex a neex a neex nee na firiwu de parce que waa daal damaa jékki-jékki rek sentiratuma dara ci moom ndeysaan mais nee na ñamewu ma aw fit ma ne ko ci cey nee na waa ji nag après takk bi waa ji ni dafa may muur ma sëy ci même jouru takku jàkka bi te ñun suñu aada xamul loolu ñun li ñu xam mooy bu dee takku jàkka nga def dangay toog seen kër ba waa ji xewal la xew bu rëy ñu doog laa muur nga sëy mais waa ji moom ci jouru takk jàkk bi dafa maa bëggoon a yóbbu ma sëy nee na ma bañ nee na affaire bi passé waa ji demandé pour muur ma ma sëy far ci diggante bi sama maam daal di damm nee bi sama maam dammee nee na ci laa ko waxee nag ni ko man mënumaa dem di sëyi wàcc fi sama maam ndax sama maam lépp lépp lépp maa ko koy defal léegi su ma demee sëyi bàyyi ko fi te te te tànk bi wérul mun na am ñàkk ko toppatoo tànk bi jural ko ay jafe-jafe léegi xam nga nu ñuy def dang ñuy may sama maam nee na ànd ceeg man ne ko dang ñuy may ba trois mois tombeek sama tànku maam bi tane nga muur ma ma sëyi ndeysaan nee na waa ji daal di accepté loolu may ko trois mois yi pour bu trois mois yi motee tombeek damm-damm maam bi wér maam ji tey waa ji muur ko mu sëyi nee na ñu waxante loolu ba tënk ci kàddu ndeysaan ma ne ko ca eskay cey cey loolu hmm. nena ci noonu nag bi ñu dàkkooree ci loolu rekk nee ñu xëyaat benn lëndi waa ji woo ko téléphone ndeysaan ni ko dama bëgg nga ñëw seet si ma soo ñëwee seetsi ma nag dama lay yóbbu sali ñu visiter sali ba pare ma defal la surprise bu nganda nganda nganda en tout cas soo ñëwee dinga kontaan nee na moom it mu accepté mu wax ko maam ji ni ko demal nee na lu tax mu accepté benn waa ji takk na ko ñaar waa ji xam na ñoom seen aada seen aada mooy tànk defoo cérémonie bu mag a mag a mag bi ba ñu muur la nga sëy amoo droit laal amoo droit jage nee na waa ji xam na loolu kon su ko waaji ne dama lay visité loo ji sali defal la surprise looloo tax mu dem nee na ñoom seen aada li ñu xam mooy même bu ñu takkee ca jàkka ja tànk sérémonie bu mag bi ñëwul amoo droit seeti waa ji waa ji mooy ñëw seen kër di toog ak yow di waxtaan ak yow waaye attention du laal du jage mais nee na lu tax bi ko waa ji invité pour visité loo ji ko sali ak jox ko surprise bi mu accepté dem parce que dafa amoon ci waa ji confiance même maam ji dafa amoon ci waa ji confiance moo tax ñu accepté bàyyi ko mu seeti waa ji parce que ñoom xam nañ ne waaji xam na lan mooy seeni ay réalité ndeysaan nee na mu xëy accepté nee na maam ji it ne ko demal nee na mu dem nee na jour bi muy dem war a seeti waa ji pour ñu ànd sali ñu visité ji ko comme ni ko ko waa ji digee ndeysaan nee na ma waa ji di ma parax paraxeloo ci téléphone bi nee na ba à la ma ma ne kon naa solu dem su ma demee foofu ma daldi ndékki ndeysaan nee na mu daldi dem bi mu demee nee na fi mu koñ bi mu dëkk ak koñ bi waa ji dëkk am na tuuti distance nee na mu dem bi mu demee fekk waa ji ci àngal bi ko waa ji doon xaar nee na moom dafa jàppoon ne bu egsee rekk waa ji da koy jëlal oto foofu ñu ànd dem sali ndax loolu la ñu programmé woon nee na mu wàcc waa ji ne ko bala ñoo dem sali da ngay ñëw ñu dem kër ga nee na mu ne waa ji noonoo jarul ñuy dem kër ga yow nañ dem sali rek comme danga ne ma woon sali nga may visiter lu nee na waa ji ne ko xam nga lan la surprise bi kër ga la nekk ñëwal ñu dem kër ga suñu demee kër ga ba pare ma jox la surprise bi après ñu doog a jël foofu oto daal di dem sali ndeysaan ma ne ko ci cey nee na ma daal di accepté ñu daal dem kër ga ndeysaan ma ne ko cey yàlla cey ndaw si nee na ñu egg bi ñu eggee kër gi kenn nekku fa kenn man ak moom ak yàlla ñoo fa nekk ndeysaan nee ñu ñëw dugg ci néeg bi bi ñu duggee ci néeg bi daldi toog nee bi ma egsee nag boobu miti moo jot nee ma daan ni ko man de ndékkeegu ma nee waa ji tamit ne ma man it de ma ne ah ok comme ndékkeegul man ak moom dinañ ndékkeendoo ñu ne waa ji ne ko d'accord ñu ne ma toog tuuti rekk waa ji ñëw daal ne ma dama bëgg nga jóg ndeysaan nga jóg nga julli ñaari ràkka ndeysaan nee na ma ne ko midi lan laay dox di julli midi ay ñaari ràkka lu xew heure julli jotagul di nee na ma waaye soxna Faatu bi ma waa ji yuuxoo ne ma jógal julli laa wax nee na yuuxuma te nee na man xam nga ne man dañ maa napp ba dama ragal rekk nee na ma afole ndeysaan cëy yàlla nee na ma summi li ma li ma soloon sol benn àbbaaye jàpp ba sell daal di julli ñaari ràkka yi ndeysaan nee na ma julli ñaari ràkka yi waa ji ne ma ndax indi nga sër bu weex ma ne ko sër bu weexi lan nee na mu ne ko sër bu weex ndax tey damay jël sa ndaw ndeysaan mu ne ma soxna faatu nga baal ma si kàddu gi ma ne ko billaahi amul àq ndeysaan mu ne ma waa ji ne ma tey damay jël sa ndaw nee na ma ne waa ji yow xam nga lu suñu aada wax nee na waa ji ne ko sama yónneeku ci sama yoon yónneeku ci sama jabar nga lew nga ma lu ma neex laa lay def ndeysaan nee na soxna faatu ma wutali bunt bi nee na ma fekk bunt bi tëju ndeysaan ndaw si nee na ma xée waxee laa ilaha illallah laa ilaha illallah soxna faatu ndekete waa ji daf ma lalal pièce ndeysaan ma ne ko billaay tudd yàlla jot na ndeysaan cey non ni ko ndaw si waxee ay ma ko mënoon a waxaat si nee na ma laa ilaha illallah ma ne ko billaaxi massa ndeysaan cey nee na ma waaji tegal ma piège boobu nee na ba ma wutalee bunt bi fekk bunt bi tëju julli naa ñaari ràkka rek nee waaji forcé nag sànni ma ci kaw lal bi ndeysaan cey hmm, soxor baaxul billaay kii moo soxor kii moo soxor mais yàlla baax na ma ni ko ci cey nee bi ma waaji sànnee ci kaw lal bi waaji jàpp ma di ma dóor di ma tëddee di ma dóor di ma tëddee di ma dóor di ma tëddee laa ilaa mooy nee na affaire violence la ko waa ji doon def ndeysaan waa ji di ko dóor di ko tëddee di ko dóor di ko tëddee nee na ndékkiwul añul reerul nee na waa ji tëddee na ko midi loolu nee na ay midi la et quelque waa ji di ko tëddee midi ba vingt heures <laughs> kaawteef midi ba vingt heures waaye yéen ah man de jommi naa kon am na ñu mën a teniree loolu ma ne ko ca eskay Sénégal ngay dégg lu ne yàlla ñu yàlla dolli sutura ay waay kii moo soxor midi ba vingt ci xale boo xamante ne ndékkiwul añul reerul nee na ma soxna Faatu midi ba vingt laa la wax de wàcc waa ji amul benn instant bu mu wàccee sama kaw ba pare boole ci di ma dóor dóor yu méttee méttee méttee métti ndeysaan mu ne su ma rasoo ba def benn geste rekk waa ji dóor nee na te dafa metti woon ma yuuxu mais nee na foofu kenn nekku fa ba mën maa wallu nee na waa ji naan ko tëdde bii ma lay tëddee sama mbokk yi yëg nañ ko kon jarul nga yuuxu nee na mu di ma dóor di ma tëddee midi ba vingt ngeen baal ma ci kàddu gi nee na la waaji dooga jot boppam cëy yàlla nee na waa ji doog koo may jàmm bàyyi ko bàyyi ko nee na soxna faatu waa ji gaañ ma gaañ yu méttee méttee métti sama pooj di metti dox sax mënuma ko ndeysaan ma ne ko ci cey nee na après loolu vingt heures boobu nee na xam nga nu waa ji def waa ji yëkkati deux mille francs ni ma jëlal taxi nga ñibbi nee na ci laa bañee ne ko man mënumaa dox dox sax mënuma ko ndeysaan nee na ci la xamee ne nag li mu def ñaaw na te mun na am su ma bàyyee ma ñibbee noonu mun na jur ay affaire nee na waa ji doog a ànd ak man ci taxi bi yóbbu ma ma ñibbi ndeysaan mu ne ko cër tët tët tët tët tët waa ji nag soxor na de waa ji soxor na torop nee na soxna Faatu ma egg suñu kër di nëbb ne waa ji yegg na sama kaw ba gaañ na ma nee na may forcé di dox normal nee na ma premier jour bi affaire bi deful effet waaye cay deuxième jour ba nee na deuxième jour ba sama pooj ji di metti sama kanam gi di metti nee na su ma toogee duma mën a toog di nëbbu douleur bi nee na su ma toogee may jéem a forcer di kaf di fooderee pour sama maam bañ a sib mais nee na bi moo toll moment boo xam ne dafa dem ba échappé ma mënatuma koo nëbb ndax nee na dafa am benn moment ma toog ci saal bi rek rek tayu ko rek ni ma doon toogee rek tayu ko rek ma ni woy nee na ndekete yoo maam ji mi ngi dégg wooy ji ndeysaan nee na maam ji nag daa di koy xool rek daa di xam ne yaa quelque chose comme bërki démb ca jëkkër ja la demoon ndeysaan nee na ci noonu maam ji woo benn tàntaam bu nekk beneen dëkk fii ci Sénégal daal ne ko sa doom ji de dama bëgg nga woo wax ak moom parce que man xam naa ne dafa maa ragal ba duma wax bu ko dara arrivé ndeysaan nee ci noonu nag tànta ji woo ko téléphone di ko laaj nee na muy bañ ba mu yàgg nee na tànta ji xam na ko suy fenn xam na ko suy wax dëgg xam na ko nee na tànta ji accéléré ko ne ko waxal rek nee na ma ci noonu soxna faatu rek sama rongoo ñi daal di wadd ndeysaan nee na ma expliqué sama tante ni ma waa ji def yëpp yëpp yëpp nee na ma ci la sama tante woowee sama maam daal di ko koy expliqué ndeysaan nee sama maam nag dafa amoon médecin médecin boo xam ne moo ko doon jox ay garab nee na médecin bi fi mu dëkk ak suñu kër boo koy dox ay 10 minutes rek ngay def ci yoon bi nee na maam ji woo médecin bi médecin bi bambara la maam ji dafa dégg bambara ñu ne maam ji di wax ak médecin bi mi ngi toog mais xamul lan la maam ji di wax ak médecin bi ndekete booba tànta ji expliqué na maam ji situation bi nee na maam ji nag affaire bi naqari ko ndax dafa amoon confiance ci waa ji ndeysaan nee na ci noonu maam ji ne ko demal ci sama médecin diw nga ne ko mu jox ma sama garab yi ma waroon a jox nee na man comme dama ragal sama maam avoué wu ko ne waa ji daf ma tëddee nee na ma jóg di dem nee na bi may dem dama doon soow nee diggante fi waa ji dëkk ak suñu kër 10 minutes laa ko doon dox mais nee na jour boobu dox naa ko 30 minutes. nee na ma soxna Faatu 30 minutes yi boo ma gisee may dox xam nga lan laay nduru ku ñu xarafal ku ñu xarafal ngeen baal ma muy dox di écarter tànk yi nee na noonu laa doon doxee ci mbedd yi ndax tellement mënu maa dox ndeysaan. nee na ma egg ma ñëw rekk waa ji ne ma kaay ma seet la ndekete booba. sama maam daf ko wax pour bu ma ñëwee mu xool ndax waa ji gaañu ma yenn gaañ yi nee na ci la ko waa ji yóbbee benn hôpital bu leen gën a jege foofu nee na mu dem ne mu demee waa ji di ko visiter nee na mënul sax ubbi tànkam yi ndax douleur bu metti ndeysaan nee na waa ji bi mu ko visiter kàddu gum ko njëkk a wax mooy ko sa jëkkër ji soxor na mais sa jëkkër ji moom nii lay jotee jigéen mais kii bon na de ndeysaan nee na à waa ji xool ko ne ko c'est vrai nag gaañ na la torturé na la mais jotu la jël sa ndaw sa ndaw bi jotu koo jël ndeysaan nee na ci noonu nag waa ji ni ko danga koy porter plaint nee na mu ne déedéet bëgguma koo porte plainte ndax sama mbokk la te en même temps yaayam sama xarit la su ma ko porter plainte après dama ci amee gàcc ndeysaan xam ngeen rek cey yàlla cey te nee na ñoom dëkk bi ñu dëkk dañoo fonk ndaw dañoo fonk ndaw maanaam waa ji ni mu ko jëlee du yoon maanaam jël bi da ko waroon a jël-jël boo xam ne seen mbokk yépp a koy yëg ñu ne mais waa ji sax bi ko médecin bi xoolee nee na ko malgré gaañ na la def na la lépp waaye e, jëlul sa ndaw léegi nag porter ko plainte nee na moom mu daal di bañ bi mu bañee ñu bàyyi mu sedd nee na ma soxna Faatu ma dellu suñu kër sant yàlla naan alhamdulilah comme suñu waa kër xam nañ ne waa ji def na ma lu bon ba ñu naan ma naa porte plainte kon dinañ tas sëy bi cey waa ji doy na waar de waaye am na mbo famille yu doy waar tamit billaay wallaay xale bii ay mbokkam sacrifié nañ ko cey yàlla nee na bi ma nee sëy bi dañ koy tas nee na waa ji woo sama ñoom maam ni leen sëy bi su tasee dangeen may fay sama cinq cent mille yu ma ci dugal nee na jamono yooyu man liggéeyaguma woon nee te sama ñoom maam aussi seen doole demeewul noonu léegi comme maam ji menacé na leen ci cinq cent mille francs rek nee na maam ji ne ko nag da ngay dem sëy sëy bi ndax ñun amuñu cinq cent mille yuñ la fayalee nee na moom suñ ko bàyyi woon mu dem liggéeyi fay 500000 mille mais nee na ñu ne ko doo ko def comme amuñu 500000 yuñ la fayalee yow sa wàllu bopp yaay dem nga sëy-sëy bi <laughs> cey yàlla yéen ku torturé nii seen doom ndax ndax 500000 francs ngeen ne far su day sëy-sëy bi ah man waaru naa de billaahi nag dëgg neexul de waaru naa torop ñene ci noonu ñu yóbbu ma hôpital ndekete dañ ma pikiir planification familiale lay wax ne na ñu pikiir ko trois mois yoo xam ne du jël grossesse ndeysaan moom mu ne ma pikiir anti grossesse la ma wax ma ne ko waaw ndeysaan pikiir anti grossesse mhm, c'est la même chose ne bi ñu ko pikiiree après ñu woo waa ji ne ko dañ koo pikiir pour mu bañ a ëmb comme danga koo gaañ ci commencement bi mais garaawul léegi dinañ ko muur mu sëyi nee na defuñu xew bu mag a mag bi waroon a tax ma doog a sëyi de nee noonu rek ci lañ ma muuree yóbbu ci waa ji ma sëyi <laughs> ndax cinq cent mille francs man parfois nag duma comprendre de nee na soxna faatu guddi ga ma sëyi jee waa ji guddi googu may na ma ma noppalu ndeysaan nee na ma waaye la lendemain <laughs> cey la lendemain nee na di ma tëddee waat di ma tëddee di ma dóor te moom dafa sadik moom bu lay tëddee da dóor dóor yu méttee méttee méttee métti nee na ba pare ñoom soo nekkee seet dañ lay muur nëbb sa kanam comme boobu moom dañ koo muur mu sëy nee dañ lay muur nëbb sa kanam pendant une semaine kenn du gis sa kanam gi nee na ba pare doo lekk ceeb xam nga lan ngay lekk laaj leen ma looy lekk cay yàlla soom bi ak sauce de pomme de terre soosu pomme de terre loolu ngay lekk nee na soom bi soosu pomme de terre pendant une semaine loolu ngay dundee ak ñu muur sa kanam gi kenn du la gis nee su ko waaj a tëddeewee dóor ko ba muy bëgg dee tëddee ko muy lekk sombi sombi bi ak soosu pomme de terre bi nee na waa ji day jël téléphone di ko filme di ko di ko ñaawal. ma ne ko ci cey waa ji da koy filmer buy lekk sombi bi walla bu dee soosu pomme de terre bi moo aye waa mu koy lekk nee na waa ji jël téléphone di ko filmer di ko kókkali muy lekk muy lekk sombi bi wala soos soosu pomme de terre bi ndeysaan ma ne ko ca cey nee na ci noonu waa ji xëyaat jour boobu loolu jàll na nee na waa ji dem pharmacie ne ko comme dangay jàmbat ay douleur xaaral ma jox la ay calmants nee na waa ji jox ko ay calmants nee na ma ndekete yoo ndekete yoo nee na ma calmants yi xam nga lan la dorog waa ji doroge ma may nelaw deux jours waa ji doroge ma nee na waa ji su ma yeewee di ma jox sombi bi wala soosu pomme de terre bi su ma koy lekk damay nelaw nee na damay nelaw di nelaw nee na lekk bi sax duma ko mën léegi bi waa ji gisee ne affaire yi mi ngi def effet nee na ci la waa ji profitowee daldi sànni garab yi nee na non seulement piqûre anti grossesse biñ ma def jiguma nee na may feebar di jeex nee na phase boobu daal di jàll soxna Faatu ma ne ko cëy yàlla sonn nga de nee ñu tëdd ca ëllëg sa di nelaw nee na ma ñuy nelaw di nelaw ba trois heures di matin nee na waaj jóg yee ma trois heures du matin ma jóg toog waa ji ne ma jógal sama gaay yi laaj leen ma waa ji bi mu yeewee xale bu jigéen bi 3 heures du matin lan la def xale bu jigéen bi man moom fii man laa keefee ci waa ji nag caay tillaxa illallah caay <laughs> waa ji yee xale bu jigéen bi 3 heures du matin dugal ko ci salle de bi xale bu jigéen bi nee na mu escorté sama gémmiñ gi yeew sama loxo yi takk sama tànk yi di ma sotti ndox trois heures du matin de mu wut escorte kol boobu kole gémmiñ gi yeew loxo yi yeew tànk yi di ko sotti ndox nee na sotti ma ndox ba ma tooy daal di may di ma tëddee nee di ma tëddee ci salle bi di ma dóor ay kurfeñ di ma dóor are bu dem beneen dëlsi nee waa ji di ma are di ma dóor di ma tëddee ci salle bi yeew sama gémmiñ gi nee na ba pare waa ji dóor ma ba ma sànni loos mu xam ne bu dóoraatee léegi ma faatu fa yàllaaw nee na ma ci la ma waa ji tekkee bàyyi ma ma dem tëddi ndeysaan nee na ma yeewu sama kanam bi tol ni réew ndax neewi sama bët yi suulu ndeysaan nee ma xëy waa ji ne ma defaral ndékki nee may defar ndékki waa ji ne ma baal ma àq ndeysaan nee ci sama xol bu rafet ma baal ko àq ñu ne ñu continuer sëy bi nee na waa ji xëyaat indiwaat ay exigence am ne ma añ midi pire midi zéro zéro zéro zéro nga yàq añ nee na ma ne ko fii du France Sénégal fii deux heures la ñuy añ wala sax ba trois heures xamuñu ay midi pire nee na mu ne ko añ bi midi lay taaje wala ma def la rek nee na commencé daggi saaga ndeysaan nee te añ boobu mu ko commandé midi pire nee na waa bu xëyee day toog ba heure bu ko neex doog koo jox ndékki ne ko defaral ndékki ñu ndékki nee bu ñu ndékkee day fekk presque midi jot na nee na waa ji ba pare ni ko añ bi na taaje midi te nee na waa ji day téye dépense su ndékki ba midi di waaja dot doog ko koo jox ba pare wëlbatiku ni ko añ bi na pare midi nee na waa ji di ko torturer nee na waa ji naan ko añ bi bu parewul midi dinaa la def lu bon nee na waa ji fa mu ko jëlal néeg moom kese fa dëkk nee na waa bu xëyee bu ko bu ko fanaanee torturé tëddee ko su xëyee kër yaayam lay yendu ji bàyyi ko fa nee du ko jox ndékki parfois du ko jox añ du ko jox reer nee na waa ji daal mooy xool ba heure bu mu décidé jox ko lekk doo ko ko jox su ko neexee du ko ko jox nee na soxna Faatu mooy souffrir loolu naa dee mois te nee na li ma gën a naqari ba naqari ma gisa bi ma duggee sama néegu sëy boobu sama benn mbokk tegul tànk ñëw seet si ma ba xool ci lan laay dund nee na pour ñoom rek comme waa ji France la nekk maa ngi dund di xàppinas te fekk torture yi laa fay dund ndeysaan ma ne ko ci cëy yàlla ay waay moo sadik nee na ci noonu nag waa ji napp na ma yóbbu na sama fit joxuma ma lekk joxuma ma naan ñu dëkkee noonu dëkkee noonu nee na ba waa ji xëy un bon jour tàggu ko ne ko day dellu France nee na ma kontaan kontaan kontaan boo xam ne nee na parce que man waa ji dama koo ragal ah ba su ma tegee loxo rek sama fit bi da naan tuxit ma ne ko yaa yey waa ji nga xam ne bu lay tëddee da dóor di yew sa gémmiñ ak takk say tànk ak lu ne mu dugg ci ak di la sotti ndox yaa bu la tegee loxo sa fit bi naaw waay ndeysaan cey yàlla ñu ne bi ko waa ji tàggoo France bi nag nee na xol bi seddu guy mu yàkkamti waa ji dem ndeysaan cey nee na waa ji ni ko damay dem su ma demee su ma ñëwaatee ñu doog a def mariage bu rëy a rëy bi nee na mu ne d'accord nee na bi waa ji delloo moom dafa fekkoon amul ay pièces d'identité nee na waa ji toppatool ko pièces yi dellu toppatool ko ko ba pare ni ko da ngay wut passeport parce que dama lay lijjantil nga fekk si ma fii ci France nee na ci noonu nag mu commencé di lijjanti passeport yi pour fekki waa ji France man de dama doon tiit boo fekkee waaji ji France sax waa defal la bagage yow ki la torturé Sénégal moom boo ko fekkee bitim réew dina doy waar de nee na muy defar papier di defar papier yi gars yi ne ko faaw ngeen am papier de mariage pour nga mën a dugg France nee na ci diggante bi waa ji daal di ñëw ñëw ni ko dama bëgg ñu def suñu mariage bu rëy a bi defaale papier de mariage ma yóbbu la benn yoon nee fi ñu koy préparer rek sama papa daal di génn àddina nee na ma daan ni ko man mënuma préparé ay cérémonie mariage te sama papa dafa génn àddina léegi comme sama papa dafa génn àddina danga may may ba sama yaay summi bu sama yaay summi nag après ma doog a organiser mariage nee na waa ji daal di d'accord d'accord naa ak moom loolu nee na waa ji jëlaat na volom delluwaat na France toog ndeysaan nee dëj bi paase sama yaay nekk ci ba summi ne na ba sama yaay summee waa ji woo ma dama damay ñëw semaine prochaine léegi su ma ñëwee jàppal nañ jàpp date nga xam ne su ma ñëwee rek damay tombe ci mariage bi ñu ñu def suñu mariage bu rëy rëy bi après ñu programmer say kayit nga mën a ñëw rejoindre ma nee na ma ma d'accord ñu ne ñu jàpp date date bi jage nee na ma dem xotti samay sañse yi ma war a sañse ci mariage bi mbokk internet yi yéen ak may dégg de nee na ma yëgle xew bi ba ñëpp yëg xew bi <laughs> ma ne ko ci cey ñu man daal bi ma yëglee xew bi ba ñëpp yëg xew bi xotti naa sama yére ba ne man maa ca ne ma ne ko est-ce que rek nee na waa ji woo ma téléphone <laughs> yebaate na nag de te waaji xam na ne ndaw si xotti na yére yi yëgle na mariage bi rek waa ji woo téléphone moo yow yaa de waa ji woo ko téléphone rek ne ko fase la <laughs> oh franchement nag kii psychopathe la de <laughs> bàyyi ba nit ki xotti yëg ay mariage am te yow yaa jàppandoo moom dat nee na mu woo ko ne ko fase naa la boo gisee guro yéyal ndeysaan ndaw si nee na waa ji nii la yàqee sama àddina fu ma jaaroon ne leen damay def sama mariage la dat sàngam ma war faa jaaraat ni leen mariage ba annulé nañ ko ndeysaan billaay wallaay <laughs> titoo waa ji moo yebaate nee na nii xotti woon naa waa ji ne ma fase naa la sëy ba tas na nii laa ca tollu nii te xotti loo na ma ay yére yégle loo na ma ma wër dëkk bi yëpp yëgle nara wëraat dëkk bi yëpp na leen sëy bi ani mariage bi annulé nañ ko ndax sëy ba tas na ndeysaan ne na ma soxna faatu waa ji bàyyi naa ko ak yàlla waaye samay famille sacrifié nañ ma ndeysaan divorcé naa maa ngi nii toog waaye fii may wax ak yow dama ragal góor man góor ci boppam dama ko ragal ndeysaan waaye nee na bàyyi na waa ji ak yàlla ma ne ko billaaxi bàyyi nga ko ku wóor te billaaxi dina leen àtte ndeysaan ca yàlla ah doy na waar de billaahi doy na waar lan moo ko fi jar kii torturé na seen doom première fois ñëw na expliqué leen ko ku tëddee nit midi ba vingt kooku lu ngeen ci ndax cinq cent mille francs doy na waar mi noonu histoire bi moom dafa metti trop man xaw ma woon ne Sénégal am na ay góor yu sadigee nii xale bi nag nee na dafa dem fi ne ba ragal góor waaye nag li ma bëgg mbokk internet yi nee na ngeen conseiller ko parce que dem na ba ragal nga xam ne tey jii bu ko nit ñëwaatoon di ko demander mariage sax est-ce que du bañ te loolu su ko toppee ni ko waa ji traumatisé mun na yàq dundam ndax day dema dem ba defe ne amatul droit dugg ci sëy te loolu baaxul moo tax waa ji yàq na dund doombu doombu aadama ba pare ay mbokkam aussi seetaan ko waa ji di ko torturer maam ji ko dugaloon ci sëy bi génn na àddina papaam aussi génn na àddina tey yaayam la deseel waa ji yàq àddinaam buñ bu amul ndimbalu suñu boroom ndax ndaw si billaahi vocal bu ne ay jooy lay àndal ndeysaan vocal bu ne ay jooy lay àndal wax dëgg yàlla affaire bi metti na torop torop torop waaye nag yàlla baax na mbokk internet yi mu ngi noonu mu nekk rek histoire bu doy waar ndax man xaw ma xaw ma daal man nan laa ko mën a tuddee parce que nag doone man ci xeet bii laa bokk rek damaa war a sadik damaa war a soxor loolu teguñu ko fenn fenn fenn man ñun xeet bi la ñu bokk nii la ñuy dundee nii la ñuy def nii la ñuy def dañoo war a sadik loolu loolu teguñu ko fenn mais nag doy na waar wax dëgg yàlla waa ji torturé na doomu jàmbur humilier doomu jàmbur yëgleloo ko mariage ba pare fase ko lu ngeen amee lu ngeen ciy wax ngeen daal ciy wax ndax nekk na lu doy waar a doy waar ma leen di jaajëfal bu baax a baax tey li lañ leen indiloon na ci wàllu nettali di nuyu suñu DG ñu ngi koy ziar bu baax a baax nuyu madame Diouf moom tamit ñu ngi koy ziar nuy sama mag bu jigéen ajaratu faatu loo moo ma jox bàgg bu rafet bii ne ma dee ko defee émission nettali maa ngi lay ziar bu baax a baax bàgg bi rafet na am na solo macha allah loo ndaam ma ca sire man nag xaw ma nuñ leen di tàggee en tout cas Modou Lo nga bokkal yaay maa ngi lay ziar bu baax a baax Seydi loo a jaaraama nu féewi féewi féewi maa ngi lay ziar tey du la làq ay anglais Aïcha mi ngi noonu di nuyu rek la coréenne moo nekkoon na ci caméra bi daal di feggoo ak debbo maa ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu équipe bu technique bu Thiès Info yëpp di leen joxaat dig daje ci yeneen i nettali si la portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info ñu daal di koy terminer ak suñu kaasu café